Yeah, Gambian musicians. Musician says BYND Lamin Cham arranged and facilitated State House visit. Mm -hmm. um, the Gambia, the Music Union of the Gambia has acknowledged the recent visit of a few Gambian artists to the office of the president, but revealed it was it was arranged and facilitated by President Adama Barrow's Youth for National Development together with Lamin Cham, DJ Champion Sound. Um, the union stated that the artists that were attended went there at their own will on contract basis by the above mentioned bodies and had nothing to do with Gambian artists or music union as a whole. Uh, Munede represented a peace initiative project which the union isn't against. We believe maintaining peace is key and the first step towards developing any nation and the Gambia is not an exception to that fact. Um, Maam Jibi mhm. ah, gis nañ ne bii moom wax nañ si tuuti si previous um, session bi mm-hmm. Gambia music industry dañ dem si president few um, music musicians dañ dem si um, president bi uh, with a project of peace initiative mm-hmm. so xam naa ne bii moom dañ si wax waaye uh, sànni si benn kàddu rek ok ci taxawaay bi nga xam ne moom day related ak sunu studio stories bi mm-hmm. mooy gis nañ ne liitam li mu wane mooy uh, Lamin Cham champion sound ak Barrow Youth Movement ñoom ñoo taxaw taxawaay bu ñuy def ba artistes yi mënoon a dem gis président Adama Barrow jébbal ko seen yéene ndax projet yéene la bu sottee ngay door a wax ne lii laa amoon yéene bi sotti na ak yu jëm ci yooyu waaye liñ ciy wax rek mooy comme la ñu waxoon ci ginnaaw mooy musiciens yi dañu war a doon benn doon benn mooy euh, defe naa ne xàcceendoo dóorandoor moo gën nga xam ni olof Njaay da bale benn bale mënut a bale fii waaye boo takkee bale bi bu say bi bëree mun naa bale lu bari ci tilim kon ñoom liñ bëgg a def pour ñu xeex ko mu sotti mooy nañ doon benn Fatmata waaw dégg maam ji bi du ma wax lu bëri rek ni ñu ko waxee woon sa benn ba ñu mm-hmm. put their house in order first but then also ñu mentionné lépp lu ñoo def regards to uh, projects of promoting peace tamit mu jaar yoon